ci wàllu jàngale ak bind ak def ay jataay yoo xam ne da ciy laabire nit ñi muy sëriñ ahmadu mbakke daarul moxti sëriñ ahmadu mbakke mu seex muhammadul murtada mu sëriñ seex faati faal mu maam cerno moom lañuy àndal tey ci jataay bi mu ñëw fii tamit nag ci jataay bi ay yooni yooni yoon ngir ànd ak ñun liggéey bi kon ñi ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm sëriñ ahmadu nag war ñoo indil tomb boo xam ne bu am solo la bu ñu ko joxoon muy asikru wa wasailuhu wa fadailuhu wa asaaruha li ñuy wax tudd yàlla yan jeexit la am ak ay jumtuwaayam ak ay ngëneelam muy sikkar loolu nag yaakaar naa bokk na ci tomb yi nga xam ne ni ñu koy waxee toujours yu ruqe yoo xam ne euh, li ñu koy waxtaanee bariwul kon danañ ci mën a jariñu bu baax a baax te bari na xëy na ñu koy def wala ñu koy bëgg def te xamuñ njariñ li nga xam ne am na ko dëgg-dëgg ak teggin yi ñu ci war a làmboo ak ni mën a jariñ nit ki sëriñ Ahmadu danañu ko indil ci ñetti tomb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 di ndokkeel bu baax itam daairatu muqaddamatul xidma wala muqaddimatul xidma ci seen yitte ju kawe ji ñu def ci liggéeyal sëriñ bi ci bërëb bi te wuutu fi mboolem murit yépp ñuy ñaan yàlla nangu liggéey bi te bégal ci sëriñ bi te yéen yi ñu am ci ànd kook ñoom mu boole nag ñoom pay yooyu yépp ci daraje Sëriñ Tuubaa ñu war a waxtaane addikru wasailuhu fadailuhu wa aadaabuhu muy tudd yàlla ak fàttaliku yàlla anam yi ñu koy defee mooy jumtukaay yi ñu koy defee ak ngëneel yi ak teggin yi njëkk loolu dinañ ko xamle wax yenn atte yoo xam ni laale na te aju ci zikr insha allahu taala doo ko jeexale nag li Cheikh Abdoul Ahad wax léegi te mooy sëriñ bi nag ak dikkir moom ci jëmmi boppam ak murit yi itam ah, nim leen ko dénke ak liñ ci jëf ñoom murit yi bu ko waxtu yu may insha allahu taala xam ngeen ne dikru ci lu gàtt rek baat bi rot na ci alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa ba tàyyi ci alquranul karim léeg-léeg suñu wax dikr jublu ci jëmmi alquranul karim inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu alxaafidun léeg-léeg mu wax dikru jublu ci julli ajjuma masalan ida nuudiya lissalaati min yowmi aljumua fasaw ila dikrillah borom xam-xam yu bari di ko firee mooy julli ga léeg mu wax ko jublu ci xam-xam fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuuna waaye léeg-léeg mu wax ko itam tudd ci jublu ci sàbbaal yàlla ak wax la ilaha illa ak wax allahu akbar ak julli ci yonente bi ak yu ni te loolu mooy lu mel ni li wax ne fa ida qadaytumu salaata fadkuru llaha qiyaama wa quudaw wa ala junubikum ida laqitum fiatan fathbutu wadkuru llaha kathiran laallakum tuflixuuna wadkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabatila yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dinaa ci tuub téeméeri yoon dellu ko ci yàlla subhanahu wa taala kon loolu mooy yi nga xam dañ ko tënk ci ab lim waaye am na zikr nag boo xam ne kenn tënku ko mooy mutlaq am nañ koo boyal tënkuñu ko ci jamono tënku tënkuñu ko ci waxtu tënkuñu ko ci bërëb wala ci toog wala ci taxaw anam gu la neex nga defe ko ni te mooy li suñu boroom wax ne fadkuruni adkurukum yusabbixuuna al-layla wan-nahaara laa yafturuuna udkuru llaha dikran kathiran wa sabbixuhu bukratan wa asilan wa daakirina allaha kathiran wa daakirati ak li yonte boo xam ne laa yazaalu lisaanuka ratban min dikrillah aaya yooyu ak xadis yooyu day tëgtal ne kon bu la neexee waxtu wu ne mën nga tudd yàlla tënkuñu ko ci dara am na tudd yàlla itam des na ko teqale ci gu nëbbu mooy wax ko ndànk ak wax ko ca kaw ñaar yëpp a baax itam Sëñ Tuubaa wax nañu ne am na wuute gu am ci borom xam-xam yi ci ndax yalu gi moo gën wala bérél gi moo gën waaye ñaar yëpp a baax am borom xam-xam yoo xam ni dañ ne yalu gi moo gën ndax ngistal boo du ci tàbbi ndax boo dee wax ca kaw ngistal mën na cee tàbbi am ñu ne kat boo dee wax ca kaw mën ngaa fàttali beneen jaam ngir moom it mu roy la ci li muy def mën naa am keneen roy la ci te loolu it ba te jeneen tuyaa baalaam ci joxaani ju am solo la Sëñ Tuubaa nag wax ne kon li li maanaam mel na ne dafa indiwaat ne kon nekk ci digg bi moo gën seet bu fekkee yow ngistal yomb na la ngay ngay wax ndànk bu fekkee ngistal yombu la nag ndax bàyyi woo xel nit ñi ngay wax ci kaw ngir keneen man cee dégg baroy la ci loolu ma ngi ca masa masaalikul jinaan waaye teewul ñaar yépp nag moo rot ci sharia ak ci alquran ak sunna doy na rek xadis bi buxaari net li ak nasaayi ak ibnu majjata te mu wax ne ana inda danni abdi bi wa ana maahu ida dakarani fa in dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi malain dakartuhu fi malain xayri minhum sama jaam bi suñu borom nee na maa ngi ànd ak yow yow jaam bi li fii yàgg may fàttaliku di ma tudd soo ma tuddee yow kese ci sa biir ma di la fàttaliku man kese subhanahu wa taala soo toogee ci biir mbooloo fàttaliku ma ma man ma ma fàttaliku la itam ci biir mbooloo mu gën mi nga toogal te fàttaliku yàlla ci mbooloo wala tudd yàlla ci mbooloo li ci ci kaw lay doon teewul am na yeneen tegtal ndax sayidna abdullah ibnu abbas danaa wax ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu masaa julli ba noppi tudd yàlla yi ñuy def di ko wax ca kaw moo may xamal ne julli julli nañ ba noppi booba xëy na ndaw la ak yeneen ak yeneen ci ay tegtal des na ko defit yow kese ak ànd ko mbooloo mi ñaar yëpp baax ndax mbooloo mi mbooloo yërmaane da cee ne ci la xol yi gën a daje ci la jàppalante dimbalante amee am na xol yoo xam ni dañoo néew doole te am borom xol yu kàttan te biir mbooloo bu fa kenn yigee leeruk suñu borom rek ci xolam jeexit bu duggee ci xolub kenn rek fi ne mbooloo méppay maase daanu daanaka maanaam nga gis ñëpp jooy bu kenn jooyee rek daanaka ñu bari dañuy jooy maanaam mbooloo mi dañuy mayante doole xolub ci doye di ki nga xam ne xolam daa doye di ñi seen xol am kàttan wala gën a leer wala gën a gën a gën a gën a jag dañ koy jàppale ñi seen xol gën a leer dañuy dimbali ji seen xol gën a lëndëm bu dee nag dajaloo di tudd yàlla ca kaw loolu bari ne tegtal yoonte bi wax na ne ida marartum bi riyaadil jannati fartau bu ngeen rombee dëri àjjana yi nangeen ngeen fa ñu ne ko lan mooy dëri àjjana yi mu ne xilaqu dikri jataay yi ñuy tudde yàlla xel xalqa nag mooy mooy benn xilaq kon ay jataay yoo xam ne ñuy tudde yàlla loolu mënta nekk kenn moom mbooloo lay doon am na xadis bu imaam muslim net li wax ne yoonte bi mas naa génn fekk saxaaba yi toog mu ñëw na leen lu ngeen fii def fii ñu ne ko nun de dañ fiy tudd yàlla ak di ko fàttali ko ak di ko sant mu laaj leen ndax loolu rek ngeen def ñu ne ko waaw mu ne man de li tax ma leen koy laajaat du dama leen a tuumaal waaye jibril ci boppam dafa ñëw ne ma kat malaay sunu borom ci boppam mi ngi leen di puukarewoo fa biir malayka yi yéen jaam ñi lu rëy loolu nag moo tax ma xam ne yéen yéen a ngi ci lu rëy te lañ nekkoon mooy tudd yàlla subhanahu wa taala bu dee tudd yow kese itam bari na mën nañ cee tegtaloo rek xadis bi imaam muslim net li te ca biir mu sabatun yudilluhum allahu taxta dilli arshihi yowma laa dilla illa dilluhu ci biir wax na ca wa rajulun dakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu ku toog moom kese fàttaliku yàlla ay ronkoñam tuuru ñooñu lu tuuti loolu ak jëf ju tuuti jooju teewul sunu borom la mu ko koy faye mooy ëllëg dana ko boog boole ca ñi nga xam ne dana leen keral ca bis pénc ba waxtu wañ koy soxlaa ci kerug ron aras mu sell moomee ay waxtu itam bu dee ci wàllu wan waxtu lañ koy def tudd yàlla bokk na ci lim jagoo mooy amul waxtu waxtu wu ne des na ci tudd yàlla bu dul loo xam ne farata la itam di sunna wala di luñ sopp amul waxtu wuñ ko tënk loolu it bu dee nag am na waxtu yu ñu ko gën a taamu waxtu yi nga xam ne dañoo aaye ku julli muy bu jant euh, buñ jullee suba ba keroog jant bi fenk diggante boobu nga xam ne dañuy sib mbaa ñu xaraamal ku julli wala bu demee ba jant buñ julli takkusaan ba keroog jant bi so diggante yooyu nga xam ne dañuy aaye julli foofu lañ gën a soppe fi ne euh, tudd yàlla bu gisee alxuraan waxtu yooyu lay wax udkuru llaha dikran wa sabbixuhu bukratan wa asilan yadcuuna rabbahum bilgadaati walashi wadkur rabbaka kathiran wa sabbih bilashi wal ibkaar mooy subaak ngoon gi boo gisee wirdu yi tarixa yi sax waxtu yooyu lañ koy def nga xam ne aaye nañ julli waaye tudd yàlla moom kenn du aaye loolu it am na xadis yu bari yu ci rot mën wax benn rek boo xam ne yonte bi dafa wax ne man ma julli suba toog di tudd yàlla ba jant bi fenk moo ma gënal jihaat ci yoon yàlla war aw fas di jihaat ci yoonu yàlla julli takkusaan it di tudd yàlla ba jant bi so moo ma gënal euh, nekk ci jihaat ci yoon yàlla am na yenn riwaayaat yu bare bare bare xadis bi ak tabaraani nat ak baxawi ak abdurazaq ak ibnu abi shaybata ak ñeneen ak ñeneen kon waxtu yooyu itam yi ko nit yàlla yi def mooy li rot ci alquran mooy li rot ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam anam yi ñu koy defee tam bu la neexee toog bu la neexee taxaw bu la neexee tëdd moo amatul anam soxna Aysa nee na yonente bi kaana yadkuru llaha fi kulli axyaanihi aw kama qaalat radiallahu anha maanaam jamono yëpp da ci daa tudd da ci daa tudd yàlla moom yonente bi mooy li alquran wax ne fa ida qadaytum fa ida qadaytum salaata fadkuru llaha qiyaaman wa quudan wa ala junubikum alladina yadkuruna allaha qiyaaman wa quudan wa ala junubihim am na lu ñu tuddee dikrul amma ak dikrul xaasa mooy xeej yi suñu borom yi am nañ seen tuddi bopp tudd yàlla bopp ñi nga xam ne nag mooy sunu sama sunu classe gi ci mbedd mi am nañ sunu tuddi bopp sunu classe gi mooy ñi nga xam ne dañuy gis rek laa ilaha illallah ñu topp ko di ko tudd di ci tudd yàlla wala ñuy jàng alxuraan nii te amuñ ca genn ndigal nga xam dañ ko jël noonu rek teewul seen xol wëy di taq ngistal di ci dugg ak rëy ak naw jëf ak waru loolu la ñu tudde dikrul amma dikru xaasa nag mooy yi nga xam ne ñoom la nit yàlla yi amee ci seen tarixa yi nga xam ne ñoom dafa am aw yoon wuñ koy defee am ngay teewlu suñu boroom ngir mu laabal sa sa xol génn ci mboolem jikko yu bon yi dugalal la mboolem jikko yu baax yi nga mën a àgg ci ngërëmul yàlla subhanahu wa taala loolu mooy dikrul xaasa dikr nag moom mooy jaamu yàlla gi nga xam ne mbindeef yépp a koy def suñu borom wax ne kullun lahu qaanituuna yusabixu lahu samawatu sabu wal wa man fihinna wa in min cheyin illa yusabixu bi xamdihi walakin la tafqahuuna tasbixum léppay sàbbal yàlla léppay tudd yàlla bu dee ci malaayika yi suñu borom wax na ne yusabbixuuna layla wannahaara laa yafturuuna ñoom waxtu na ñu ngi ci tudd yàlla ñoom Sëñ Tuubaa nee na taamuhum dikrul ilahi washaraab tasbiixuhu fi kulli xiinin lartiyaab bu dee jinne yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu sayidna jaabir ibni abdillah wax na ne mas naa jàng moom yonente bi suratu rahman jàng ko ba mu àgg ñépp ne tekk mooy leen yéen dey jinne yi ñoo leen gën nuñ ma tontoo woon ndax ñoom de ba ma leen ko jàngalee saa yu ma àggee ci fa bi ayi alai rabbikuma tukadibaani dañuy wax ne laa bi cheyin min niamika rabbana nukadibu fa laka alhamdu dañuy tudd yàlla waaye yéen bu ma jàngee ngeen ne tekk mel ne defut ci yéen benn jeexit kon yeen jinne yi ñoo leen gënu demin foofu ñoo leen gën nuñ ma tontoo loolu kon day wane ne jinne yi noonu la bu dee ci doj yeeg Euh, garab yeeg yooyu yëpp it alxuraan wax nañ dañuy tudd yàlla wa saxarna maa daawuda al jibaala yusabbixna wa tayra wa kunna faailina yónente bi sallallahu alayhi wa daana yor ay jàmbaraay ñu gis ñu dégg muy sàbbal yàlla moom moom doj yi yi yor ba ci dëndu gi suñu borom ne yusabbihu raadu bi hamdihi wal malaikatu min xiiwati aw ñam itam sayidna abdullah ibn mas'ud nee na bu ñu daa xéewlu ci kanam yonente bi ñam wi ci boppam day sàbbal yàlla ñuy dégg asamaan yi noonu wax naa ko léegi ba ci jën biir géej ga suñu borom neen dañuy dañuy tudd yàlla xatta alxuuta la yusalluuna ala muallimi nnaasi alxayra ci fas yeeg yëpp lu ci ne am na ay nas wala ay nusuus yu ci rot yu ware ne ñoom ñëpp dañuy dañuy sàbbal yàlla ba ci njanaaw yëpp wa tayru saafatin kullun qad alima salaatahu wa tasbihahu nañ am moo xam ni al hudhud wax na sayidna suleymaan eh, moom ca xew-xew boobee ñu xamoon ca balqiis waaye gis na wax na ne ko allaa yasjudu lillahi alladi yuxriju alxaba fi samawati wal ardi wa yaalamu maa tuxfuuna wa maa tulinuuna allahu laa ilaaha il laa ilaha illa huwa rabbul arshil azim loolu monsieur Ndioubourou moo ko wax picc moomu kon léppay sàbbal yàlla wa in min cheyin illaa yusabbihu bi hamdihi zikr nag am na jumtukaay yuñ koy defee am na anam yu ñu koy defee jëmmi zikr ci boppam rek jumtukaay la ngir yee xol ndax tudd yàlla dëgg dëgg mooy tudd yàlla xol xol bi ko yàlla subhaanahu wa taala dundaat ci leerug suñ borom loolee nag moom ci boobu moom zikru kon ab jumtukaay la ngir yee xol ngir waat ndax suñ borom wax nañu ne njëkk dara di xew dajale woon na suñu ruux yi wax nu ne alastu bi rabbikum ñun ñëpp ñu ne bala kon ñun gëmoon nañ yàlla boobee lool nag dañ ko fàtte woon biñ ñëwee fii fàttali fàttalikuwaat loolee nag mooy mooy yittey tudd yàlla ak jaamu yàlla yépp zikr nag kon jumtukaay la moom waaye ngir nga def zikr yu itam am na yeneen i jumtukaay la ci jiitu mooy làmmiñ làmmiñ danañ ci defe zikr te mooy lu mel ne jàng alxuraan làmmi lañ koy defee alxuraan zikr la waaye boo koy def ci sa làmmiñ itam yaa ngi jëfandikoo làmmiñ ngir def zikr itam waaw loolu it sëñ Tuubaa ne wax na ne wa afdalu dikri kitaabullahi maa tadabburi wal intibaahi téere yàlla bi alquraanu karim moo gën ci yi ñuy tudde yàlla yépp tudd yàlla yitam ci wenn ci turu yàlla itam moo xam laa ilaha illa laa ngay wax wala kenn ci turu yàlla yi moom kese ndax lool it lu sax la sayidna Bilaal ibnu Rabaax bañ koy mbugal moom ahadun rek la ahadun ahad te hada ismun mufrad ismu mufrad la loolu su ma wax ne was wadkur rabbik wa tabattal ilayhi tabtilan ismu rabbika mooy allahu arrazaq alwahid al ahad al samad al latif waaye nag suñ tubaa wax nanu ne suñ wax na ne qul allah qulillah thumma darhum fi fi xawdihim yalaboon waaye suñ tubaa wax nanu ne koo xam ne day doog a sóobu kooku li gën ci moom muy wax laa ilaha illa allah baat baatu benn benn wenn tur yàlla nag kese muy allahu masalan loolu moom gaa yu mag ña ñoom lañ koy bàyyee wax na ne wa in takun mum fa nafyu aw laa ma taadimi yaa uxayu bika bi laa ilaha illa allaahu wal muntahi muxtasirun billah làmmiñ bokk na ci yi nga xam ne des na ko jëfandikoo moom làmmiñ ngir tudde ko yàlla mooy ñaan ñaan làmmiñ a koy def damay bañ a taxaw ngir mu gën a gudd waaye tudd yàlla yëpp yi lam ñi def mënees na ko tënk ci ñett boo gisee tarixa yëpp seeni awraat génnut ñett yi may waaj a wax mooy istigfaar di jéggalu yàlla nga xam ne day raxas sa biir ak salaatu asalaatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom day dugal ci yow jikko yu baax yi jikkoy rasulillahi sallallahu alayhi wa ak laa ilaha bi nga xam ne mooy def li ñett yooyu la taxal li tajalli dooga am istixfaar bari nay tegtal yonente bi daan wax ne man bés bu nekk dinaa dellu ci yàlla lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon mu xadis bi wax ne téeméer yoon sunu boroom digle ko ci alquran wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim bu dee salaatu ala rasulillah moom ku ne xam ne tegtalam bari na ndax suñu borom ci moom moo wax ne man moom i moom ak malayka yëpp dañoo maase di julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi yàlla ko digle wa sallimu tasliman bu dee laa ilaha illa allah suñu borom wax ne faalam annahu laa ilaha illa allah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu imaamu tirmisi nee na afdalu dikri laa ilaha illa allah dikr dara gënu ci laa ilaha illa allah loolu Sëriñ Tuubaa wax na ne wa lafdu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu l ilahu salla alayhi bi salaamin fi jamia sihaabihi an alihi allahu samia afdalu ma nataqahu man yadkuru fa kullu man ankarahu fa yaxsaru li gën ci li nit ki tudd ci làmmiñam sëñ mag bi nee na mooy laa ilaha illa allah sayiduna muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu al aqwali fi lmaraami kalimata shahadati alislaami fa kullu man dakaraha muctaqidan madmuunahu daxala jannatan gada wax na ci lu bëree bëri ca masalikul jinaan wax ne képp koo xam ne yaa ngi wax laa ilaha illa allah faw di nga dem àjjana te itam mooy njëgul àjjana wa xasbuka fiha annaha tud'a thaman jannati rabbina li daf'iha fitan mooy kiiraay yitam xisnullahi itam kiiraay li nga xam ne boo ci tàbbee dara du ko mën a bët sëñ bi wax na ne képp koo xam ni bàyyi naa tudd baat boobu laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi te tey ko faw ci yaraange rek lay jëm te du amul ay itam ëllëg wax na sax ne ay secret ngi ci yoo xam ni mënee su ko wax waree su ko bind itam kon làmmiñ jumtukaay la ngir tudd yàlla waaye itam cër yi itam jumtukaay la ngir tudd yàlla waaye ku ne xam na ne làmmiñ ni muy tudd yàlla ak cër yi ni ñu tudd yàlla bokkuñu cër yi tudd yàlla mooy mu def ndigal yi bàyyi tere li sëñ bi wax ne wa xifduhul jawaarixal batnu lisaan farjun wa rijlaani wa aynaani yadaan saabiuhal udnaani man laha raa an il maasi xaasa qasdan ajmaa kon cër yi dañ ci tudd yàlla waaye ni nga ci tudd yàlla mooy def ci li yàlla santaane moytu ci li yàlla aaye xol bi itam dañ ciy tudd yàlla te loolu mooy li gën a rëy te gën a màgg te gën a mën a yittewoo waaye ni nga ciy tudd yàlla mooy lan mooy xéewal gu ñëw nga lëkkale ko ak ki la ko jox soo nelawee ba yew te nelaw di xéewal gu rëy rëy goo xam ne boo ko defutoon ñetti fan kese kenn du xam looy nuru boo yewoo na nga sant yàlla ni ko yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam daa defee boo xéewloo ba noppi te loolu am na ñu ko ñàkk mënuñu koo am te boo ko amutoon ay fan sa bakkan xaj na ci na nga sant yàlla alhamdulillahi alladi atama atamani hada taam wa razaqanihi boo duggee ci wano yi génne tooka yi ne ci sa biir ba mu dañ ba mu dañ am na ñoo xam ne mënuñu mënta génn ci ñoom loolu na nga sant yàlla muy dem rek xéewal gu ñëw nga lëkkale koog suñu boroom ci sa xol nga xam ne loolu mbirum xol la ak ni nga koy xalaat da koy xalaat ci sa xol loolu yi ak itam booy tudd yàlla ci sa làmmiñ it mën nga ko booleeg sa xol boo dee jéggulu yàlla nga teewlu jéggulu googu ci sa xol boo dee julli ci yonente bi nga teewlu màggu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sa xol boo dee wax laa ilaha nga teewlu dàq lépp lu may yàlla ci sa xol kon xolit des na ko jëfandikoo loolu sëñ bi wax na ci lu bari borom xam yi di wax nañ ci lu baree baree bari ba tey bokk na jumtukaay yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ngir tudd yàlla mooy ay jëmm am na jëmm yoo xam ne yàlla da leen def ñuy ay tudd yàlla ñoom nga foo leen gisee fàttaliku yàlla yonente bi dara wax ne xanaa duma leen xibaar ñi gën ci yéen ala unabbiukum bi bi xiyaarikum ñu ne ko ah kay bëgg dañoo xam kay tànneef yi dëgg-dëgg bëgg nañ leen a xam mu ne xiyaarukum alladina ida ruu dukira allahu taala jëm yi nga xam ne boo leen gisee rek fàttaliku yàlla loolu kenn ku ne ci noonu rek seetlu na ko ci sunu sëriñ su baax si na euh, mën ko misaal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi boo ko nee tegg bët sa sa xel dem ci yàlla ak jëmm yu bari ci biir yoon wu sell yoon wi nga xam ne mooy yoonu sëriñ bi Sëñ Tuubaa danaa wax moom loolu wax na ne yonent bi moom dikrullaahi la wa huwa alladi sammayta dikrallaahi wal aali wa saxbi usuudillaahi salli ala abdil ilah xabibihi dikril ilah yonent bi dikrullaahi la Sëñ Tuubaa nee na la waaye daakir la wala waaye mu dakkir la itam loolu yëpp tudd na ko nee na salli ala nadbin sumaahu daakiru musalliman yaa man lahu lmashakiru salli ala man ismuhu mudakkiru am na jumtukaay yoo xam ne dañ ci wàññee tudd yàlla loolu duma ci taxaw mooy baaraam yi lu mel ne boo jullee ba noppi subhanallah walhamdulillah loolu nga def ko sa baaraam yonente bi ci la ko diglee woon waaye jël kurus itam jëfandikoo ko loolu itam lu borom xam-xam yi balluloo ci xadis yi nga xam ne moo rox ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi mas naa fekk seen soxna mu yor ay xoox di def bu tuddee yàlla teg fee xoox ba tudd yàlla teg fee xoox ba yonente bi ne ko yow dey man am na loo xam ni moo gënoon a gaaw ci yow boo ne woon subhaanallahi adada ma xalaqa fi sama wa subhaanallahi adada ma xalaqa fi l ard wa subhaanallahi adada ma xalaqa bayna dalik wa subhaanallahi adada ma huwa xaaliqun wallahu akbar mithlu dalik walhamdulilah mithlu dalik wa laa ilaha illa allah mithlu dalik wa laa hawla wa boo ko waxee moo gën a gaaw li ngay def ni ndax daa yeex nga xam ne yonente bi daqul lim doon def waaye da koo digal lu gën lim nekkoon foofu la borom xam-xam it nekkoon ginnaaw soxna si moom ay xoox la yoroon xoox yi wutal ko buum mënu ko mënu cee indi sikk ginnaaw yonente bi may na ko mu jëfandikoo ko soxna Fatima euh, mii doomi sayidna xuseyn ibnu ali ibni abi talib karama allahu wajhahu ibnu saad ci tabaqaat wax na ne yoroon na buum goo xam da ko fas ay fas-fas yu bari nga xam ne moom lay tudde yàlla moom lay sàbbale yàlla loolu mooy kurus rek boobu kurus kon xëy na da ko gisagutoon loolu moo tax borom xam-xam yi ne kurus yooyu kon lañu moom lu wér la lu ñu sopp la sax ci am ko ku mel ne Jalaaluddin Suyuuti alxaafis Jalaaluddin Suyuuti def na ci risaala bu gàtt tudde ko al minhatu fi subha bu am solo indi ci mbooleem tegtal yi may wax yépp xaddis yeeg nusoos yeeg aataar yi nga xam ne moo koy tegtale al allaama muhammad ibnu illaani siddiqi ba tey def na ci moom it téere boo xam ne mu ngi ko tudde iqaadul masaabix li masruiyat itixaadil masaabix ibnu abidin itam wax na ci lu bëree bari ñoom ñëpp wax ne moom lu wér la ñu ñëw kon ci tombub ñaareel bi te mooy ngëneeli tudd yàlla tudd yàlla bari nay ngëneel la ci jiitu mooy tudd yàlla mbooleem maqaamaat yi nit yàlla yi wax ci ay jeex itam la moom tudd yàlla tàmbalee ko ci yeewu xol xol bu yeewu ba àgg ci li ñuy wax ak tawxid al irfaan yi maarif yi itam muy xam-xam yi nga xam ne moom lañu yàlla baaxee abdan min ibadina atinaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman ilmu ladunni boobu yooyu yëpp ci tudd yàlla ci la ñuy jaara ñoom ba yàlla tawféexal leen ko kon moo jiitu lépp mooy asaas bi nga xam ne ci la lépp di taxaw moom tudd yàlla bokk na nag ci ngëneelam la ci jiitu mooy ndigalul yàlla la boo koy def yaa ngi def lu yàlla digle suñu borom moo ne udkurullaha ya ayuha alladina amanu udkurullaha dikran kathiran booy tudd yàlla kon yaa ngi def ndigalul suñu borom tabaraka wa taala bokk na ci itam xéewal yi ci ne ak njariñ yi mooy tudd yàlla mooy raxas xol mooy dind ci sa xol jàngoroy xol yi lu mel ne rëy naw jëf yëg sa bopp waru ak nay ak gaaw a ak ngistal ak soxor ak fuqle xeet yi jikko yu bon yooyu tudd yàlla moo koy raxas moo koy génne ci sa xol moo lay dugalal itam jikko yu baax yi lu mel ne dëggu ak pëstéef ak yaqiin ak sellal ak bëgg yàlla bëgg yonente bi bëgg sëriñ bi te bu ma waxee bu ma waxee tudd yàlla danañ ci ñëw xasaayidi sëriñ bi dara gënu ko ci mooy mooy li ci jiitu ndax ay tudd yàlla la kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat loolu dañ ci ñëw ci mujj gi insha allahu taala kon xeeti jikk yu am solo yépp nga xam ne moom la ñépp bëgg góor yàlla yépp di ca daw jëm dikr mooy li koy def ci yow tajal lii nag doog a ñëw mooy leerug yàlla nag doo ko tàbbi sa xol aw man kaana mayitan fa ahyaynahu wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas ah, leer googee nag ittaqu firasata al mumini fa innahu yanduru bi nuurillah ah, kuy leer kuy xool ci leerug jant bi am na loo mën a gis muy adduna bii nu ne waaye al malakut ak aalamul jabarut awalim yooyu moom nuurullahi rek lañ fay gise te leer googu tudd yàlla moo ko mën a def ci sa xol bokk na ci njariñi tudd yàlla mooy day xacc xol kon da koy xacc yonente bi nee na xol day xumaag ni weñ gu ñuul di xumaage ne nag li koy xacc dindi xumaag yi dindi taq-taq yi fóot ko mooy tudd yàlla subhanahu wa taala am na yenn riwaay yu wax itam jàng alquran ak yeneen ak yeneen bokk na ci xéewal yi ne ci tudd yàlla te dara gënu ko ci rëy nag mooy booy tudd yàlla boo toogee di tudd yàlla yàlla mu ngi lay tudd yow di la fàttaliku fadkuru nii adkurkum loolu lu rëy la sëñ bi xam nga suñu borom day buur bu mag a mag a mag a mag noonu itam nuy ay jaam yu xeebu nekk ci bërëb yu tuuti yi nga xam ne suuf si ñu ne daanaka moo benn fepp suuf suuf si mu ne ak li muy ci nun mook benn fepp suuf ci biir suuf si ci kaw suuf lay xaw a tollool ci xeeti adduna yi nga xam ne ak euh, biddiw yi nga xam ne moo ne moo nekk ci dun bi du dara dañoo tuuti yow na nga mën a am buur bu màgg boobu di la fàttaliku yow sa bopp kenn ku ne ci nun sëb sëriñu bopp buñ la nee moom nee na nangam boo ko defee dana la jural sa sëriñ bi joom bëgg na ba di la fàttaliku loolu moom doo baa moo doon sayit kenn ku ne ci noonu rek bu la wóoroon nangam ji boo ko dee suñ ci moom nga mën a jataay moom mu di la fàttaliku loolu moom loolu dootu defate leneen sax moom ah, te suñ borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo sàkk lépp Sëñ Tuubaa bi moo nu booleeg moom xéewal yi ne ci moom léppit moo ko defal kooku boo mënee am mu lay fàttaliku loolu dara gën ko rëy te yonent bi sallallaahu alayhi wa wax na ne yonent bi suñ borom nee na yab na aadam in dakartani fii nafsika dakartuka fii nafsi loolu mooy riwaayatu ahmad wa in dakartani fii mala in dakartuka fii mala in min al fii aw fii mala in xayrin minhum ma fàttalikoo yow kese man ma fàttaliku la man kese man yàlla soo ma ko ci biir aw nit ma ànd ak malayka kay yow di la fàttaliku loolu dara gënu koo rëy ci li ci ne am na xadis bu bayhaqi net li wax ne suñu borom dafa wax ne iddaa ida dakartanii ko xaali xaaliyan soo toogee yow kese bàyyi lépp ngir fàttaliku ma ak ngir tudd ma man it ma bàyyi lépp man kese wéet ngir tudd la yooyu ay maanaa yoo xam ne dara gënu ko kawe dara gënu koo rëy ci ab jàmm waaw bokk na ci xéewal ak njariñ yi ne ci tudd yàlla mooy ma maayatullahi alxaasa suñu borom day ànd ak yow geneen ànd gu bokkut ak gi mu ànd ak nit ñi xam nga suñu borom wax na ne wa huwa ma aynama kuntum ànd ak ñëpp moom kenn ku ne suñu borom mi ngi ànd ak yow gën laa jege sa bu mu xol waaye teqe na ci biir jaam ñi ay nit ñoo xam dafa wax dafa ànd ak ñoom geneenu àndiin woo xam ni maaya xaasa la inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muxsinuuna wallahu maa sabirina la ma al muxsinina laa tahzan inna allaha maana kon am na beneen maaya xaasa maaya xaasa boobu yi nag yonent bi dafa wax ne boo dee tudd yàlla danga xam ne suñu borom mi ngi ànd ak yow maaya xaasa geneen àndin goo xam ni àndinu euh, euh, dimbali la ak taxawu la ak aar la ak euh, leeral sa xol ak may la jàmmi biir ak jàmmi xol loolu lépp la mooy li mu wax ne ana ma abdi ma dakarani wa taxarakat bi shafataahu ana inda danni abdi bi wa ana maahu ida dakarani xaaris yu bari root na ci jegeeg sa borom itam ci xadis bi ma wax léegi rek ma nga ca muy tudd yàlla yaa ngi dox jëm ci yàlla te yàlla nee na soo doxee ab mètre wut si ma ma dox kilomètre wut si la subhanahu wa taala tudd yàlla bokk na njariñ yi ci ne mooy day tax suñ borom puukaree woo la fa biir malayka ya ndax yonente bi xadis bi ma njëkkoon a jàng wax na saxaaba yam fekkoon ñu toog ñuy tudd yàlla mu ne leen kat jibril dafa ñëw ne ma kat gaañee toog yàlla mi ngi leen di puukarewoo fi kanam malayka yi mi ngi leen di tagg di leen kañ di fonk lool di bëgg ci li ñuy def te loolu tudd yàlla lañ doon def booba yonente bi wax na ne xanaa duma leen xibaar li gën ci seeni jëf ala unabbiukum bi xayri amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaaqi dahabi walwariq wa xayrun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu anaaqahum wa yadribu anaaqakum xanaa duma leen xibaar li gën ci li ngeen di jëf seen jëf yëpp li ci gën li ci gën a sell gën leen cee gaaw a jox ay daraja yu kawe gën ci yéen joxe seen alal gën ci yéen jihaad ci yoonu yàlla saxaaba yëpp ne ko loolu kay bëgg nañ ko xam yaa rasulallah mu ne leen dikrullahi taala tudd yàlla subhanahu wa taala ak fàttaliku ko moo tax lu rëy rëy la loo xam day tax yàlla ci boppam julli ci yow suñu borom bi mu ne yaa ayuha alladina amanu udkuru llaha dikran kathiran wa sabbixuhu bukratan wa asilan daa teg ne huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min adulumat ila an nuur loo xam day tax yàlla ci boppam eh, julli ci yow loolu lu rëy rëy la sëñ te julli yàlla xëyut ci menn mi def tudd yàlla day tax seytaane daw la seytaane tudd yàlla la ragal boo dee tudd yàlla mu day daw soo noppee tudd yàlla nag mu del si yonente bi nee na nit ki bu duggee këram bu nee bismillah seytaane day wax ne fii kat mënuñu fee fanaan tey soo tiimee ñam wi ne bismillah day wax ne fii ñam wi it mënuñu cee xewlu nan seeti feneen Sëñ Tuubaa moo tax mu wax ne kun za ijtihaadin daakiran lillahi dug fa shayatina wa kullallahi da nga farlu tey tudd yàlla ndax boo ko defee danga nga ci seytaane yépp fa daafi anhu in ata mu waswisan bi dicri rabbina takun muqaddasa wa sijnu seytaanin bi laa xilaafi dicrul ilahi lmaanii lmuaafi seytaane benn kaso la am mooy tudd yàlla booy tudd yàlla yaa tëj ci kaso te kenn ku ne ci noonu am na seytaane su la su la yàlla booleel seytaane soosu am na ci aasaar yi buy wax ne seytaan yi dañuy daje buñ dajee seytaane day am boo xam day am doole lool am kattan ndax moom mi ngi lekk waxtu wu ne di ànd ak waa ji mu àndal di lekk am seytaane boo xam day yooy du am benn kattan bu ñu waxtaanee nag kenn ko kenn ki ne ko yow lu tax nga mel ni mu ne ko man de waa ji ma àndal moom bis lu mu lekk wax bismillah moo tax mënumaa xew lu ànd ak moom maa ngi nii kon tudd yàlla noonu la mel mooy li gën a rëy suñu borom nee na wala dikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnauna yonente bi wax na ne ñii tudd yàlla ñoom ñooy ñi raw ñooy ñi raw sabaqal mufarriduuna ñu ne ko ñan ñooy mufarriduuna mu ne addaakiruuna allaha kathiran wa addaakirat tudd yàlla ma ne ne jaamu yàlla yëpp dikr la itam aqimi salaata li dikri di soxna Aysa wax ne yonente bi nee na tawaaf baytullahi alxaram ak safa ak marwa ak ramyul jimaar eh, ak yooyu yëpp li iqaamati dikrillahi la loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ba tey xeet tudd yàlla yëpp wala xeeti jaamu yàlla yi ngay def loo ci boole tudd yàlla yaay ëpp bi yool ka nga xam ne da koy def moom kese te boole ca tudd yàlla fi ne lu mel ne murid yi nga xam ne murid boo gis am na tudd yàlla gu muy def benn muy jàng xasida wala mu yor wirdul maaxuus wala muy jàng alxuraan wala maanaam wala ku bokk ci tarixa rek nag sax aslan faw day day tudd yàlla moom lu bokkut ak yeneen jaamu yàlla yi bi nag dafa mas a wax ne dañ ko mas a laaj ñii jihaad ku ci ëpp mooy leen ku ca boole tudd yàlla kooku de mooy ne ko ñi woor kan moo ci ëpp tuyaaba gën gën ci ak pay mu ne leen ku ca boole tudd yàlla de kooku mooy kay ëpp ab ab yool te mooy gënu pay ñu ne ko ñii julli nag mu waxate loola ka ca boole tudd yàlla kooku moo ci gën di ko lim ba ca mujj ga moo tax ci mujj xadis bi Seydina Abubakar dafa wax Seydina Omar ne ko yaa aba xafs dahaba dhaakiruuna bi kulli xayr kon de ñiy tudd yàlla ñoom yóbbu nañ yiw wépp nee na Seydina Muhammad ne ko ah kay wax nga dëgg noonu la ñii tudd yàlla ñoom ñooy ëppale ci lépp tudd yàlla dana dem ba wuutu ay jaamu yàlla fi ne te loolu rot na ci xadiisu imaamul Buxaari bi nga xam ne fuqaraawu ñoo ñëw ci fuqaraawu Madina waaye ñàkk ñi ñoo ñëwoon ci yonte bi ne ko dahaba ahlu dusuuri min al amwaali bi darajaatil ula ñi am alal yóbbu nañu yëpp ndax lu ñu def ci jaamu yàlla ñu def ko te ñoom li ñuy def ci seen alal nun amuñu ko amuñu alal duñ ko mën a defee yonente bi ne leen xaar leen ma jox leen loo xam ne bu ngeen ko dee def dana wuutu ci yéen mboolem dañuy def ñoom ci lu baax ne leen tusabbixuuna wa taxmaduuna wa tukabbiruuna xalfa kulli salaatin salaatan wa salaasina da ngeen di wax subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa wallahu akbar bu ngeen ko defee borom alal yi la ñuy def ci seen alal lu ñu toll yéen ci tuyaaba da ko am ci lii ngeen lii bu ngeen ko defee tudd yàlla àgg na ci mën a mën a wuutu goreel ab jaam ak jihaad ci yoonu yàlla ak qiyaamu layli loolu lépp xadis rod na ci boo xam ne moo koy wax te mooy xadisu tabaraani bi nga xam ne moo wax ne man danna bi maali an yunfiqahu wa haaba leyla an yukaabidahu wa xaafa aduwa an yujahidahu fal yuktir min subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa wallahu akbar ba tey tudd yàlla bokk na ci njariñ yi yi ci gën a fës mooy day tax yàlla nangu say ñaan gis nañ sayidna zakariya ba mu ñaanee suñu borom ne ko rabbi habli min ladunka dikran durriyatan tayyibatan innaka samiu duaa daal di sàkku ci moom aaya rabbi jaal li ayatan qaala ayatuka allaa tukallima annaasa talaatata ayaamin illaa ramzan waaye suñu borom da ko caa tegal wadkur rabbaka kathiran wa sabbih bil ashi wal li ngay def nii ngir bëgg ma nangu sa ñaan da nga ciy boole nag tudd yàlla sunu borom àgg na ci wax ne yow boo dee tudd yàlla kese boo dee tudd yàlla kese te boolewoo ci Eh, ñaan li may jox ñii ñaan lu ko raw laa lay jox yow loolu suñu su suñu borom wax na ko ci xadis qudsi ngërëmul yàlla it mu ngi ci loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ñii tudd yàlla it ñooy ahlul karam ñooy ñi yeyoo teraangay suñu borom ya tey ak ëllëg tudd yàlla itam da jikkoy jikkooy na suratu saar wi nga xam ne moom la suñu borom tudde naafiq yi mooy suratul munafiqina yaa ayuha ba muy jeex suñu borom da ko jeexale yaa ayuha alladina amanu laa tulhikumu amwalukum wala awlaadukum an dicrillah wa man yafal dalik fa ulaika humul xaasiruun kon loolu day wane ne naafiq yi ñoom duñ tudd yàlla lu bari tudd yàlla da indil xéewal yoo xam ne yu di ko suñu borom waxee ci alxuraan moo ci gën a gaaw ci jox la xéewal ak ay teraanga tudd yàlla jataay yi ñu koy defee dëri àjjana la noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ida maratum bi riyaadil jannati fartau tudd yàlla mooy bërëb mooy loo xam ne bu ko ay nit di def malaayka yi ñi ngi ñëw ànd ak ñoom wër leen tiim leen ba ca asamaan sa loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam itam moo ko wax xolub doomu aadama léeg-léeg dana am wow gu ci ne goo xam ni tudd yàlla kese moo ko mën a nooyal waaw moo tax tudd yàlla tudd yàlla ci la daluk xel ne daluk xel dëgg-dëgg ci tudd yàlla ne daluk xel alaa bi dikrillaahi tatma innul qulub njàqare itam ak jaaxle yu dem noonu yooyu yëpp tudd yàlla moo ko mën a dind ci nit te loolu lépp yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko wax yonente bi àgg na ci wax ne nit ki bu toogee tudd yàlla léeg bu fay jógee mbooleem lu mu amoon ci bàkkaar suñu borom da koy jéggal loolu bari na lu ci rot ci ay nusoos tudd yàlla ki koy def ak mujjam day rafet foo ko fekk waaw mbugulum suñu borom itam li ci gën a mën a musle mooy tudd yàlla gu bari loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo ko wax aljane itam bërëb yañ fay am garab yaag tool yaag kër ya tudd yàlla yi ci lañ koy tabaxee te loolu sayidna ibrahim al xalil ba yonente bi rañaanee yonente bi nee na ibrahim sayidna ibrahim da ko wax ne ko nag ma nuyul saw xeet te xam leen ne kat aljana suuf su baax a fi ne te nangu mbay te ndox ndox mi neex na te pàkk la boo xam ni li koy li ci jëmbët garab yi mooy bu ngeen waxee subhanallah wala nga wax alhamdulillah wala nga wax laa ilaha illa allah wala nga wax allahu akbar saa yoo tudde yàlla rek jëmbat nga garab ci àjjana akub tool kon loolu mën nañoo gàttal foofu am na téer yu bari yuñ bind ci njariñ yi nga xam ne lu mel ne ibnu atala sikandari dajale na njariñ yi tudd yàlla yu bari ci téere bi mu tuddee miftaaxul falaax eh, borom xam-xam yi tam ak nit yàlla yi wax nañ ci lu bare bare bare dañuy ñëw rek ci ki nga xam ne mooy sangu nit yàlla yëpp mu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu wa nga xam ne moom wax na ne amma dawaamu dikri fa ak akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru lépp lu murid bi baril la ca ëpp solo gën ca mooy tudd yàlla dafa wax ne wa annahu bidaayatul wilaaya maanaam wilaaya bunt bi mooy tudd yàlla koo gis mu bëgg di tudd yàlla lu bari kooku booy boo nga moytu ko te xam ne nitu yàlla la subhaanahu wa taala indi na ci jeexit yu baree bari itam wax na ne wétali ko yàlla ci tudd yàlla nga ko mën a amee sëñ bi moo wax loolu wax na itam tuyaaba yu bari ju ci ne loolu lépp ma nga ca masaalikul jinaan buñ ko toppee damay kan day gën a gudd nekk noonu yeneen borom xam yu baree bari borom risaalal xuseyriya euh, abul qasim al xuseyri ak ibnu atala sikandari ak arrazi arrazi moom wax na ci bi muy sarx bi muy tafsir aayab walillahi al asmaul wax na ne jahannama mooy sàggan ci tudd yàlla képp kuy tudd yàlla xamal ne yow yaa ngi ci aljana ndax sàggan ci tudd yàlla loolu mooy jahannam dëgg dëgg mooy sawara dëgg dëgg dëgg dëgg kon li ci borom xam-xam yi wax bari na moo tax nag bu ñu seetloo nit yàlla yi moo tax bu ñu seetloo nit yàlla yi baaxoo ñoom ñépp ñu fonk tudd yàlla ñu fonk tudd yàlla bu mujj seenug dund soppe ko ñuy dund dundug malaayika ci sell ak mbaax ak yiwe ak jikko ju rafet dem ba ñoom yàlla kese mooy toq seen xol yàlla itam ci moom lañuy bàyyi xel ci lépp yàlla itam lañuy jëflanteel ci lépp adduna génn ci ñoom loolu ci nit yàlla yi fonk tudd yàlla rek nga koy fekk am na nag jeexit yu muy def ci ñoom lu mel ne li ñuy wax wajdu wajdu lu am la imaamu bi ci kitaabul i'tisaam wax na ne mooy xol bu tooy xol bu tooy walla bu gësëmu ngir eh, am na keneen ku ñu wax eh, Cheikh Aminul Kurdi ci tanwiirul qulub dafa wax ne ruux gi bu janloog leeri suñ boroom yi day jaaxle léeg-léeg walla mu bëgg walla mu tiit yooyu yëpp man naa am lu ci ne itam mooy feet ci jëmm ji mooy yëngu bii nga gis yéeg-yéegi fettasu wala ronqooñam génn wala mu yëngal boppam wala sax nag mu jug nag fuddutu wala yu ma noonu yooyu yëpp mën na jeem waaye lépp ci moom lañ tuddee wajdu te lu lu lu lu lu jeexit la joo xam ne ki koy def defiwu ko ci sagoom ndax li ngay def ciy tudd yàlla leer ga ca ruux ga lay lay dal jaar ci xol bi doo ko mën a ñëw ci li ñuy wax bakkan ak jëmm ji nii ruux gi bu yëngutoo rek faw jëmm ji yëngutu moom la abu madian al xaws cheikh abu madian al xaws waxoon ne wa qul lilladi yanha an il wajdi ahlahu ida lam taduq maana sharabil hawa daana ida ihtazat al arwaaxu shawqan ila al liqa tamaayalat al ashbaaxu wala naam tarqus al asbaaxu yaa jaahila al maana tamaayalat al ajsaamu yaa jaahila al maana kama qaal kon ñu ñëw ci teggin yi nga xam ne moom la kii tudd yàlla war a làmboo teggin yi nag yu bari la sëñ bi lim na ca lu baree bari ca masaalikul jinaan la ca jëkk mooy li wax ne wa udda min aadaabi dikri daakiri juluusu abdin fi makaanin taahiri mustaqbil al qiblati daa tarabbuci aw mutawarrikan kaman salla faci tayiba raihatin id la taxlu majalisu dicri ida ma tajlu an il malaikati bi istimain wa muminil jinni ala al ijmaai dafa wax ne tudd yàlla am nay teggin yoo xam ni mooy tax jeexit ji mën a feeñ ci yow teggin yooyu nag boo ko sàmmunte mën na laa jural sax ab safaan ndax ñàkk teggin lay doon ci suñu borom tabaaraka wa taala fi ne boo gisee sëñ mag bi dalaa digle wédul maaxoos bi ku koy def nga toog jublu penk bañ ko booleeg leneen ndax day wax ne boole kook leneen di jug di tudd yàlla di jug di dem ak di def yeneen loolu suu adab la ci suñu borom ñaawal ay teggin la sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala moo tax sëñ bi daa wax ne toog ci benn bërëb bu laab boole ci te yow sa bopp it nga laab jublu penku sa xet gi nga gi ngay xëy neex nga bañ koo booleeg benn sikk du zahir wala ci barin sa xolit nga raxas ko teewlu itam sëriñ bi ci boppam wala jëmmi suñu borom tubaab taala wala jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye wala nga teewlu lu baax rek nekk sa xel sëñ bi daana am lu ñaar yoo xam ne da ko daa digle moom ma ngi ca masaliku jaan li wax ne waxris alal ixlaasi wal ixfaa yi li ngay def na sell waaye na nga koy nëbb nag sa kem kàttan bul def loo def rek wax ko loo def ñëpp xam ko loolu baaxul kon buñ ko doon gàttal dañuy wax ne kii tudd yàlla war naa laab jàpp war naa teew lu yéene war naa jëlit lu yem te dëppoog ruuxam bañ koo ëpp bañ a bañ a yées war naa itam jublu penku toog ci bërëb bu laab bañ koo booleek lekk wala naan walay wax te ànd ak toroxlu itam ak woyof fi kanam suñu borom tabaaraka wa taala tudd yàlla mi ngi mel ni ak lekk rek ndax mooy lekk gu ruux Sëñ Tuubaa nee na waalam bi anna dikra xuutul qalbi ma ruux li muy dunde xol li muy dunde mooy tudd yàlla sa jëmm ji nag lekk yii lay dunde lekk yi nag boo koy def faw nga raxasu ndax boo ko deful sa loxo maa lekk gi dara nekku ci jafe-jafe waaye sa loxo mën na am microbe yoo xam ni boo ko lekkaalee mën na laa jural jàngoro moo tax tudd yàlla itam faw nga laab doog koo def lekk bala nga ko def faw nga wax bismillah te loolu mooy yéene ji faw nga yéene itam lu yéene ndax lu bind binniyaati ci booy tudd yàlla jël ci lu yam itam bañ a jël lu ëpp loolu it baax baax na ci lekk waaye noonu la baaxee ci tudd yàlla itam ndax am na yu ba boo jëlee lu ëpp lu la ëpp doole mën nga xëy tegandoo ko waaw mi ngoog kon loolu lépp mën ci ñàkk te bërëb bi nga koy defee ginnaaw mu laabee itam sa sa làmmiñ ak sa sa sa gémmiñ gi ngay tuddee yàlla itam nga fexe mu laab mu set te nga teewlu itam euh, ci sa xol itam nga fexe ba génn ci mbooleem yi nga xam ne ay sikk la teewlu rek bañ teew lu daray àdduna rek loolu lépp boo ko ci mënee mooy li gën bu dee tudd yàlla goo xam ne ko séq ak ay nit mooy moo xam da ngeen di jàng xasiida wala ngeen ànd mbooloo muy tudd yàlla loolu it fexe ba sàmmonteeg jataay bi loolu ci teggin yi la bokk te mooy mbooloo mi bu leen xatal boo ñëwee fa nga fekk mbooloo mi yem fa rek na nga taxaw foofu bul jéem a dem ci ci kii bul bul def sa kàddu yi itam mu gën a kawe kàddu yi ñi nga àndal fexeel ba tollook ñoom yooyu yëpp ay teggin na yoo xam ni danañ koy wax ñu ñëw nag jeexale ko ci sëriñ bi ci boppam diggam ak dikr sëñ tubaa loolu yi mu wax ci yónente bi yónente bi dikrullahi la sëñ tubaa moom it dikrullahi la jëmm la joo xam ni day fàttali yàlla ci lépp ida ruya dukira allah subhanahu wa taala gis nañ ko ci njëlbeenam danaa ñaan yàlla may ko mu sax ci tudd yàlla wa hab lii dawaama dikri wa shukri wal xubba gis nañu mu daa mu ko ñaan waaye loole suñu boroom nangu na ko ndax wax na ne nafaatani bila adan fa shukri laka kama laka dawaaman dikri dawaaman dikri am na feneen fu wax ne bi alifi sheytaani adhib makra li bi yaa man udiimu dikra maanaam yàlla da ko may tudd yàlla nekk lu sax ci moom jamono mi léppam tudd yàlla la waxtum yépp bi mu feeñee bin ko gisee ak ba bin ko noppee gisee Sëñ Tuubaa day lëkkale ñaar tudd yàlla ak sant ko ñaar yooyu daa mel du leen teqale moom fu mu tuddee dikru rek li ci ëpp dañuy tuddee shukru ñaar yooyu ñooy ànd shukri wa dikri li fatiri sama aldahiri albatini muliman sama dikri wa shukri lahu ma istu munsalixan min kulli cheyin yuri ayban mi nga fu mu tudde dikr rek da ci tudd shukru ci lima ma seetlu loolu mën naa ci wax lu bari gis nañ màggal Tuubaa bisub sant yàlla waaye bisub dikr la itam ah gis nga Cheikh Mouhamadul Fadil ci xutbaam yooyee ya jiitu ba mu koy woote fii ci Touba yàlla na ko yàlla fayal dafa wax ne li jiitu ci niñ koy màggale bal azimuhu mooy na ngeen ko màggale ci jàng alquran ak tudd yàlla ci xeet tudd yàlla yépp ak jàng xasaayit ak bernde ak jokkuk mbokk kon bisu sant la te sant gi mbirum xol la waaye yi tam itam mooy mooy li nga xam ne moom la cër yi jëf ñu di ko ko wanee Sëñ Tuubaa léeg-léeg nga gis ci mbindam sax lu baree bari dañuy xool ci xasida day ñaan yàlla defal ko li des ci dund gi maanaam waxtu day yeesal yéene sax ci tudd yàlla baqiyatu baqiyatul muksi li rabbi li rabbi li rabbiyal karim dikran wa shukran lahu baqiyatu mukusi dhakiran bi qalami wa bi lisaani moo tax mu wax ne yàlla ci boppam moo ko jox tudd yàlla ci boppam muy mbiram boppam lii qaada dikrallaahi rabbillahu qataan wa laa ilaha illa allaahu an tudd yàlla moo ko moom tudd yàlla léeg-léeg sëñ bi day wax ne man mooy sama jaamu yàlla abuduhu bi dikri wa shukuri walam yazal bi rafiin shakuri moom nag jëmmi boppam ni mu daa tudde yàlla wute na kook ñëpp ndax moom lépp may maase di tudd yàlla ndax dafa wax ne lam yaxfa inda kulli xaasidin xasad kawniya tahira al fuaadi wal jasad yanwi fuaadi al xayra yadkuru wa yaabudul badanu rabbi bil xisaan loolu wax na ko ci maanaa yu baree bari ci biir yu baree bari dafa wax ne man sama léppay maas yi tudde tudd na yàlla ndax sama xol aw yiw rek la yéene sama làmmiñ it waxtu ne mi ngi tudd yàlla jëmm yépp mi ngi maase di di tudd yàlla di ko fàttaliku yazkuruhu kulli bi hada dikri kulliyati aabidatun lillahi dikran wa shukran maa naxaani laahi kulliyati lidil baraaya daakira lépp mu maase di tudd yàlla lool it lu yéemu la teewul itam ñu gis mu koy teqale di wax ne làmmiñ wi dafa sax ci tudd yàlla makkana fi dikri wa qawlil xayri rabbi lisaani loolu wax na ci lu bëree bëri wax ne sax tudd yàlla mooy samay wax qawliya laa ilaha illa allahu muhammadun rasulu min mawlaahu cër yi itam loolu lay wax ne samay cër itam dañoo maase sax ci li yàlla gërëm waxtu di fàttaliku yàlla ak di ko tudd waqtana fi lwaajibi wal manduubi rabbi jawaarixi maa taadibi tawajjaha albadanu lil mamu lil mamuuri bihi li wajhi llaahi dil umuuri na ci wax ne man samay xalaat ak samay wax ak sama jëf yépp ak tudd yàlla la ak fàttaliku yàlla la fikri wa qawli wa amaali ila albaari dikran wa shukran bi iqbaali wa idbaari wax na ne aada yi sax bu ma koy def mbiri aada yi te moom daw ci def lu amsolo lu mel ne lekk ak naan loolu moom man nañ ne maanaam daw xawes naa mën wax sax ne dawu ko def daanaka ndax dawut lekk ak lekkam amul solo ak naanam amul solo ay nelawam amul solo waaye teewul nelaw yooyu yëpp dikr la ci moom di wax ne shurbi wa akli wa juluusi wal qiyaam shukrun wa dikrun ka salaatin wa siyaam xol bi itam bu sell boobee noonu noonu la meloon ci waxtu ne moom yàlla kese moo cay moo cay rot moom waaw na lahu xitaabi wa huwa xibbi jaari wa dikruhu ila fuaadi jaari moo tax ñu gis muy sant yàlla lu bare bari ci ñaar yooyu ci jëm ci ci làmmiñam xolam ak cëram ni muy fàttali ko yàlla ak ni mu koy tuddee loolu wax na ci lu bare bari ndax da tudd yàlla ci lépp bi nutqi wal xatti wal amaali bil jasadi nee na dikri wa shukri li baaqin la sharika lahu bi nutqi wal xatti wal amali bil jasad léppam da ciy tudd yàlla moo xam mbind la wala jëfam wala waxam lépp tudd yàlla tudd yàlla moo doon jëflante gi dox diggam ak boroomam ay xalimaam sax wax na ne ñoom am nañ teraangay waxtu dañuy tudd yàlla ndax moo leen di jëfandikoo te ci tudd yàlla rek leen di jëfandikoo faasa alxilaami bi dicrillahi muzamanin wa faasa kulliya fi daareeni wallahi tudd yàlla gu sell la daa def dëkkoon ca sëñ moor xari sill moom Tayba gis naa cheikh sëñ cheikh Hafsa cheikh Ahmad Bamba sëñ cheikh abi ñu sëñ cheikh abi bind na ci téeréem bi wax ne sëñ moor xari sill la wax na ne gis na sëriñ bi mu julli gee toog tàllal ay loxoom sol lu weex tàll tàllal ay loxoom toog ba mu jullee gee ba fajar ci benn jataay te loolu mooy mooy ak dundam loolu loolu ci la ci la dëkkoon moom waaw bërëb bu mën a mas a wàcc itam loolu la fay njëkk def julli ak jàng alquran ak tudd yàlla gis nga bi muy nettali yoonu géej gi itam loolu lay wax day wax bërëb bu ne ba mu demee lam fa lam fa taalif ak tudd yàlla yam yam fa doon def ci jamono yooyu bi mu dajeeg ñoom jeewal ak feneen ak feneen lil muntaqa wajjahtu fii ndakaaru dikran bihi xat kooku wal makal bu mu demee Dakar gis nga bi bihi ba mu demee ca biir tubaab yi itam ak noonu yàlla yi dakartu rabbi inda qawmin kaafiriin waxdi wa qaadali ujura sabirin loolu wax na ci lu bëree baree bëri moom danaa wax ni sëñ bi danaa wax ne tudd yàlla mooy loo xam ne mënuma ko bàyyi bu ma ko jéemoon a bàyyi du ma ko bàyyi du ma ko man ma du ma ko man uwaxidullaha wa lastu ushriku shay'an lahu wa dikrahu laa atruku inni la atruku dikra rabbi li wajhil karim wa huwa xibbi dama koy def sax ci ba keroog aljana rek noonu la ko daa waxee sa adkuru llaha lil jinaani murtadiyan anhu wa li qaala ibqaan wa imdaa dana wax ne mooy sama kenu li nga xam ne ci laay wéeru moo tax du ma ko bàyyi waaye nag dikroom nag da ko daa ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu yéemu la gis nañ mu wax ne zintu salaamayni min almultahadi liman bihi nudiimu dikra al ahadi maanaam tudd yàlla gi ñu ngi koy jaar maa ngi koy jaare ci jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu it lu da koy gën a barkeel ndax yonente bi mooy buntub suñu boroom bi yàlla tànn nga xam ne jaare ci moom da ëpp solo jaare ci leneen lu may moom bari na itam yu mu wax ne ci dikru la ko amee loolu mën nañ cee wax lu mel ne wax na ne dikru dikru yóbbu na ma ci almadkuur qaadaniya dikru ilal yi loolu sëñ bi wax na ko mooy dikr mooy fàttaliku yàlla ak di ko tudd moo yóbbu ci jëmmi suñu borom ja loolu wax na ni ngërëmul yàlla tam ci la ko amee loolu am na fu mu ko wax wax na itam fi la ci la ci la amee euh, ribx boo xam ni bu rëy rëy rëy la bu tuyaaba ju rëy ju suñu borom defal lim doon sàkku lépp it wax nañ ci laa ko amee dikrul ilaahi qaadali muraadi wax na ne itam barakatu zikri itam suñu borom jox na jox na ko ko barke tudd yàlla suñu borom jox na ko ko loolu wax na ko ci bërëb yu yu wuute wax na ne ya ummu niya ridwaanu min kulli wijhatin wali qiida yumnu dikri wal xati wal qalam mooy loolu mënees na ko dégg ci ne tudd yàlla yi nga xam ne moom moo bàyyi ko ci sëriñ bi boo koy jëfandikoo daa gën a kawe gën a barkeel gën a gaaw a ndongu geneen tudd yàlla gu mën a doon mooy mooy wali qaada wali qiida yumnu dikri wal xatti wal qalam wax na ne njariñ yu bare bari ba amee na ko ci kaaraangeeg suñu borom wax na ne àgg naa ci suñu borom ci moom moom di ma fàttaliku ci saa su ne ci jëmmi fàttaliku gi ma ko fàttaliku ak tudd gi ma koy tudd dakatu rabbi wa nabi wa dakar rabbi ya amri xayra dikrin wa shakar loolu wax na ci lu baree bari wax na sax ne maarifa ak yaqiin ak wusuul yooyu ci zikr laa ko amee zikrul ilaahi jaadali bil maarifa wa bil yaqiini wal wusuuli maarifa ngir gàttal rek mën nañu wax ne masalan sëriñ bi dundam gépp moom loolu la loolu moom boo koy waxtaan sax da waxtaan lu ñu xam dundam gépp tudd yàlla maanaam waxuma la moom waaye lu ko jege rek ci tudd yàlla ngeene ne gis nañ bi mu ñëwee ba njëreem nga xam ne fi la mujje def na xasida goo xam ni muy nuuru daaree nii fii xidmatil xaami anil aarimi xasida goo xam ni man damaa jàpp ne da cee tënk dund gi li weesu ci li weesu ci dund gi yëpp ci nekk gi nekk ci kaw suuf da ko cee tënk ba nañ ko ba wax na ne bu ma saa wax ne sama téere ba nuuru daarin la lañ ko indil ndax téere bu dund suñ tubaab moo ci daje nga xam ne téereb xam-xam la boo xam ni maarifa maarif yëpp mi ngi ci téere bu xasida yi nag boo ko seetloo day mel ne wenn bayit ci la xasida gépp di di wër di wër maanaam xasida gépp day wër maanaa yëpp day dellu ci wenn bayit mooy lam wax ne lam tan rab bi wala ansaak maanaam mosuloo maa fàtte yow suñu borom te man duma la fàtte mukk maanaam li gis nga lim jiital lam tansani xam nga sunu borom moo ko njëkk fàttaliku ndax moo ko tànnoon ca asal te suñu borom lii ñuy jëf nii mënta jeexital ci moom ay jëfam mooy yuhibbuhum moo jiitu wa yuhibbunahu doogu ñëw radiyallahu moo jiitu wa radu doo doo ñëw kon moom yàlla moo njëkk a sopp sëriñ bi njëkk ko tànn njëkk ko fàttaliku moo tax sëriñ bi bi mu ñëwee mënta def maanaam mënut a fàtte yàlla mooy lam tan sa ni rabbi wala ansaaka maanaam jëmmi salaatu yi nekk ci biir xasida gi yoon maanaam buntu sant la la ko def ak cant la loolu li may wax ni boo dee boo dee boo seetloo ci biir xasida di nga ko seetlu ndax da ndax day wax mboolem yi ko yàlla taw feexal ci dund gi yépp day wax ne yàlla yaa ma ko defal yaa man lahu taqdimu kat tamliiki asamtani min dararil muluki yaa man lahu lxalqu kama lahu l umuur kafaytani fadlan ada kulli amir yaa naafian bi kulla man yazuuru xamaytani ma darrani waziru yaa man lahu kun fa yakunu yaa malik xamayta kulli an mashaqaati suluk alimat al aadaau anni indaka laa indahum busharatan li jundika sabartani an ilxaraami qablu wa fitnatu nnaasi mahadul kablu sabartani an kulli makruhin maanaam mboolem yooyu yëpp daa xam ne yow yaa ma ko defal sabartani an kulli ma laa yanfau min al mubaahaat sabartani ala imtithaali amrika suqta li gayri al ida bi qahrika qaharta li nafsi qaharta li hawaay wa sua wal idlaala suqta li siwaay awaytani ilayka ya karimu ya baqiyan shukurahu arum nafayta iblisa wa ma walahu raditu anka alyawma ridwana jami ibadika alkirami ya xayra samim mallaktani nafsiya qutta li alxuyura min dunyaaka wa qutta li maarida tunyaaka noonu la ko toppe ba àgg ci li mu wax ne safayta qalbi muslihan musaddidan bi ka lisaani li yaqutta madada qutta jawaarihi ila al amali alsaalihaati mukmila al amali qalbi yanwi al xayra wal lisaanu tanxu lahu al adkaaru wal xisaanu doog wax nag ne lam tansani rabbi wala ansaaka salaatu yëpp nag muy ak cant nag goo xam ni moom lay sante li muy wax yàlla nañu ko yàlla fayal bu dee murit yi nag digal na leen ba tey ñu fonk tudd yàlla wax na ne wala simi wala simi dikra bila israari wala gufuulin taalu bil asraari na nga sax ci tudd yàlla na nga taqoog tudd yàlla yow murit bi am na feneen fu mu wax ne duumu ala dikri rabbin la sharika lahu bi ma bihi azhaba al ahzana di sax saxal tudd yàlla dafa wax ne sa sa làmmiñ wi na ko wutal benn dëkk ak benn bërëb boo koy tëj te mooy tudd yàlla waqtin lisaanaka ala al dana wax ne bu leen neenal yéen murit yi benn waxtu waxtu yépp na ngeen koy tudd yàlla guddi yi sax na ngeen koy dundal ci tudd yàlla fa duma ala sëhëri fil adkaari wax na ne waxtu wu ne na ngay nekk ak baatub laa ilaha illallah kun maa laa ilaha illallahu muhammadun arsalahu ilahu laazim li wajhillahi dikrallaahi wa sir bi ahmad al alilillaahi laa ilaha illallah jii nga gis murid di ko dikkar loolu wax ne sëñ bi bi mu nekkee fii ci Touba wala tàmbale ko ci Daaru Salaam sax moom ci boppam sax moo ko daa dëbbe nekk ci biir mbooloo mi nekk ci bitti di ko di ko di ko aw laa ilaha illallah moom sëñ bi daa wax ne saw ñam yow murit bi ci gën a neex te xam ngeen ne li waxoon naa léegi ne sëñ bi nee na waxlam bi ànd na dikra xuutul xal bi maanaam dikr moom la xol di dunde ndi nga xam ne lekk yi moom la cër yi ak jëmm ji soxla Sëñ Tuubaa nag dana wax ne yow sa ñam wi gën a neex def ko muy saxoo tudd yàlla xayru taami lil saali ki dawaa mu dikri dil jalaalil maaliki moo tax Sëñ Tuubaa daa ne yow bul xëccu di jëm ci leneen lu may tudd yàlla bul jëw bul rambaaj bul wax lu bon yéeneel yi ñëpp aw yim te nag bul yàq sa waxtu itam ci lu amul njariñ waxtu ne del tudd yàlla te di dimbali ko suñu borom te bañ a naagu bañ naw sa jëf bañ a gis sa bopp itam wa saxix istiaanatan billahi bi dikrihi waaw ah, Sëñ Tuubaa dara wax ne kiiraay yi nga xam ne mooy yi gën a bon ci ab murit saggan ci tudd yàlla da cee bokk moo tax yow na na nga moytu loolu dara wax itam ne jaamu yàlla yi ci gën a rëy mooy tudd yàlla mm, moo moo ci gën a ëpp solo amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu Sëñ Tuubaa wax na ne xéewal dafa am xéewal gu ci ne mooy yow booy tudd yàlla yàlla ci moom dalay dalay fàttaliku yow it yaa ayyuhal muridu laazim dikra man yadkuru man tax taxwil amal moo tax Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ne ku ma saa ñëw ci sëriñ bi dalay jaar ak yow ci yoonu tàggat la ci ñime loola ab xiif di la liggéeyloo itam liggéey bu bari waaye itam yan la itam tudd yàlla gu baree bari nga di ca sax moo xam laa ilaha illallah la wala jàng xasida lu mën a doon waaye na bari ci yow murit foo ko fekk day baril ak tudd yàlla boole kook nag beru ak moytu jaxasoo rawatina jaxasoo ak jigéen ñi suñ tubaa dara daa jàppoon ne moom mooy xaasinu dikri loolu wax na ne laa yaxtafi ala al baraya kaw ni xaasina dikrillaahi nuuril kaw ni maanaam moom daf moo mooy kii kii wattu tudd yàlla tudd yàlla bu doon jëmm ki koy sàmm di ko aar mooy sëñ Tuubaa gis nañ mu wax ne moom dafa bëgg a tabax njën ni loo xam ne lépp tudd yàlla kese lay doon sarantu baaniyan bina ad dikri ah dafa te loom doon tabax taxaw taxaw na ci bu wér a wér ndax murit yi yàlla def na leen tawféex lu ñu leen mën a wax ñi gën bari lu ñuy tudd yàlla ci jaam yi lañ bokk yonent bi dafa wax ne buñ toogee fii ci guddi biddiw yi ni nga leen di séenee noonu la waa asamaan si di séenee bërëb yi nga xam ne ñu fay tudd yàlla ma ne ko asamaan yi da xam naa bu ñu séenee Touba kon xanaa ab galaxie lay doon ci ñoom maanaam bërëb bis bu set nga dégg ay jàng na bis yi ñu tàmbali nga xam ne tey dañuy tam toog waxtu di jàng xasida ba waxtu wa del siwaat man fekk naa jataay yoo xam ni lu mel nooru daare nooru daare ni gën jaa néew juróom benn téeméeri salaatu am bi mi ngi ci te toog naa gis naa jataay boo xam ni gën jaa néew jàng nañ ko fa junni yoon maanaam tudd yàlla gu bari googu nga xam ne murid yi ci moom yëguñu sax li ci gën a am solo nag mooy yëguñu ne ñoom ñi ngi koy def moom loolu am solo la te murid boo gis mi ngi ak tudd yàlla benn mu yor dul wala mu jàng alquran wala muy eh, eh, def jàng xasiida wala mu boole yëpp nag loolu mooy sang si moom moo tax Sëriñ Tuubaa la ma waxoon de tabax njënnil tudd yàlla saraatu baaniyan binaa a dikri loolee lu taxaw la tabax boobu moom taxaw na waxoon na itam ne wabdi liyal xisnal xasina xaafidan ak dikra bi ñaan na suñu borom mu wattoo ci moom dikr te loolu lu am la yàlla na ko yàlla saxal te dara bañ ko gàllankoor li qaada rabbila rabbillahu dikran lam yura li xeyri daati wa li xeyri lan yura wax na ne laka shukr laka shukri wa ridwaani wa mahmadati ala makaati bi dikrin axjalal kutuba ay daara yi tudd yàlla loolu ñaanoon na ko ba suñu borom may ko ko mu di ko ci sant itam ci yàlla da koo may ay daara ay bërëb yoo xam ne tudd yàlla kese lañ fa def xam gis nañ lu mel ni daaray kaamil daaray kaamil ci Sëñ Tuubaa lañ ko njëkk a xamee ci li ma xam man ca njaareem njëkk njaareem sax fii ci Tuubaa nga xam ne bërëb boo xam ne dañ koo defar ngir jàng alxuraan kese mbooloo nekk fa bi seet ñu wàccee kaamil gën jaa néew ñeenti kaamil bu guddik ajjuma ñu wàcce ko juróom juróom-ñaari yoon te loolu ba fi mu ne nii fii ci jumaa ji am na fi dëkki murit yëpp it boo gisee am na fa li ñuy wax daaray kaamil nga xam ne bërëbu zikr rek la ak jàng alquran moo tax euh, bu xasaayidam yi ñuy jàng te di te te jamono ji ku ne gis nit ñi gën ci gën koo wut ci donte nag aajana ñu farlu ci tegg ni ñuy jàngee xasiida yi ma waxoon léegi ci tudd yàlla rek di ci jël lu yem sa jëmm ak sa waxtu ak sa tolluwaay te am ci ndigal laa tafaalu ann bi xayri dikri te bañ a woyofal yi ci des ndax sëñ bi mbiram menn mbir la mu jàppaloo loo ci teqi rek bàyyi yecce des sikk day am faw nga am kilifa faw itam nga kilifa googee ma maanaam nga ngay diglu ndigalam wala nga laaj ko ndigal ci li ngay def loolu mooy mooy day gën a barkeel li ngay def fonk sariya masalan fonk yeneen yi ci des yëpp boole kook nag dikr bi ngay def ndax mbirum sëñ moom lépp dikr la kitaabati dikrun wa sukrun wa sadaat euh, bindal nañu itam ay fi ne lu mel ne tey nuur daarin bi ma wax nga xam ne juróom benn téeméeri salaatu gën jaaneew mi ngi ci bu dee jaalibatul maraaxib gën jaaneew ñetti téeméeri salaatu ala mi ngi ci te Sëñ Tuubaa wax na ne te loolu xaddis la boo julloo ci jullee ci yonte bi benn yoon yàlla ci boppam day julli ci yow fukki yoon yaa man yaquudu li musallin marra alayhi ashran qad tuniru birra loolu la yonte bi wax ne man salla alayya salaatan waxidatan sallallahu alayhi biha ashran loolu moo tax loolu ay tudd yàlla yoo xam ne yàlla buñ ci gisuñ bopp yàlla na ko yàlla nongu yàlla na ko yàlla saxal yàlla na yàlla defal nu ci daje ci ngërëmul sëriñ bi te lépp di ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala maa ngi jéglu bu baax ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam waxtaan wi am na solo waxtu wi sax des na waaye li nga xam ne moom lañ amoon doon am yaakaar ci nga indi ko indi nga ko indi bu kawe njort nga ñu doon waxtaanal ci tomb bu am solo boo xam ne bu matoon a bàyyi xel te déglu ko ndax Euh, bëri na ñu ci ñu koy def te defin wi mën naa am jàngatuñ ko niñ ko war a defe dëgg-dëgg muy asikru wasailuhu wa fadailuhu tudd yàlla teggin yim war a làmbool ak niñ koy defee ak ay ngëneelam loolu dafa doon loo xam ne dafa dëkk ak ñun wala boo képp koo xam ne jullit nga rek te di jëf yenn jaamu yi mu ngi ànd ak loolu moo tax ni nga indee tomb yi muy tënkal ñu ko ci ñetti tomb wala ñeent bi ci njëkk mooy yenn jumtukaay la ba war a àndal ak ngëneel yi nga xam ne moom tudd yàlla am na ko ak teggin yi waaye tomb bi nga xam ne mu jëng ko te mu am solo lool muy diggante sëriñ bi ci boppam ak jikar xamle gi nga xam ne xam xam xamle nga ko ci tàmbali bi lan mooy sikko indi ci ay tegtal yoo xam ne sunu boroom tudde na ko alquran tudde ko julli tudde ko xam-xam kon xëy na loolu dafay wane ne lépp lu baax rek lu nit kiy def mënees na ko tudde loolu ah jumtuwaay yi tamit nga leeral ñu ko bu baax a baax ci tombum ñaareel bi wala ni ñu koy defe ak teggin yi nga xam ne tamit ki koy def noonu la war a àndal bokk na ci soo koy def nga sellal sab xol ci yéene jublu xib la soo ko mënee laab tamit ba noppi nëbbu ko te bañ cee boole ak ngistal moom tudd yàlla tamit sàkkaluñ ko waxtu wuñ ko war a def walla dañ walla barab muy waxtu wu nekk mën nga koo def waaye am na waxtu yuñ ci gën a taamu muy suba ak ngoon dañ ko ci gën a taamu xëy na da cee gën a sakkan ci nga leeral ne mboolem borom tarixa yi sax ñu ci bëri wirdu yi ñu ñuy joxe waxtu ginnaaw jullik suba ak ginnaaw jullik takkusaan lay gën a law ci mboolem tarixa yi nga gis xëy na yenn wirdu yi nga xam ne dañ koy def moo xam yi ñuy béral la moo xam yi ñu yelu ci waxtu yooyu nga koy dégg ñu koy def loolu tamit di ay tegtal yu am solo mu bëri ay ngëneel lool nag bokk na ci day tax ab xol naat day jox nit ki tamit leeruk xam-xam tamit boo koy def yaa ngi jëf ndigalul sunu borom tabaraka wa taala day raxas xol da koy musal ci jàngoroy xol moom tudd yàlla sun ndax dana musal jaam bi ci kiñaan musal ko ci ngistal musal ko ci déggtal ak jàngoro yooyu nga xam ne yépp dafay gàllankoor jaam bi te mu lëkkaloo ak xol day soril nit ki seytaane day soril nit ki saytaane seytaane moom boo bëggee mu sori la rek sa xool taxool ak tudd yàlla sunu borom tabaaraka wa taala day taxit sunu borom ànd ak yow far la day tax sunu borom ànd ak yow day tax tamit euh, nit ki xelam ak xolam du lu ci lenn lu dul yàlla sunu borom tabaraka wa taala maanaam daf koy sellal ci mu muy wéetal sunu borom day dindi tamit ak naafeq day dindi ak naafeq ci nit jikkoy naafeq da koy da koy dañal day waral daluk xel stress yu bari yi nga xam ne jamono ji bari na lool fi mu ne nii ngir crise bi am ànd ak indaale crise ci wàllu économie ak ci wàllu kiris xëy na ci diggante nit ak ay njabootam wala nangam yooyu yëpp tudd yàlla sunu borom tabaraka wa taala dana tax sa xel e, di génn ci jafe yooyu dana taxit sa xel di mucc ci mbir yooyu day taxat jaam bi am ak mujj gu rafet ndax soo ko soo ko taxoo dana tax saa su dogal bi ñëw du la bett te dana tax sax xol di teewlu sunu borom tabaraka wa taala dana taxit sag mujj rafet nga leeral ci lu am solo ci ne yenn tegtal yi nga xam ne jaam bi da koy def yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne riñaan na yonent yàlla ibrahim wax na ko ne ko boo demee neel sa xeet wi nañ farlu ci di tudd yàlla subhaanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah walaahu akbar ndax bépp jaam boo xam ne mi ngi koy def rek yaa ngi jëmbat ay garab wala yaa ngi jëmbat ay garab ci àjjana loolu war naa tax kon jaam bi am euh, di ci farlu dégg nañ ci waxtaan wi ne ci timit euh, nit ki li mu def lépp ci lu baax rek euh, moo xam jàng alquran moo xam jàng xasiida moo xam salaatu ala nabi loolu lépp dafay tegtale ab joxañ la ci xeeti tudd yàlla sunu borom tabaraka wa taala loolu moo tax nga indi ci teggin yi ñu samoon teggin yi bu baax a baax auzu billahi min asseytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim